am na mbégte trop ñëw tey cees parce que Thiès dañuy organiser tey li nga xam ne mooy feetu xale yi maa ne lii dafa nekk occasion pour ñun woon Sénégalais beneen xar kanamu syndicalisme parce que lu ñu faral di gis ci syndicat rek mooy ñu gis ci télé yi wala ci rajo yi ñuy revendiquer di dox di ñaxtu mais dañ bëgg a won sénégalais que lu ñu liggéey du rek doxu ñaxtu dañ am njaboot dañu am fu ñu bokk de sort que moment yi bu yeggee dañ doon faral di gis ni yeneen ministères yi ñuy feete seeni xale ñu ne ñun jàngalekat yi aussi jot na suñuy njoboot sentir nu aussi ñun tamit ay liggéeykat lañu ñu feete leen loolu moo tax initiative bi nga xam ne Thiès jël na ko tey pour faire la fête des enfants dafa une initiative pour me saluer mais loolu moo tax ma def le déplacement ñëw fini à Thiès bokk fête fêtes ak ñoom wax aussi c'est une façon de leur dire que fête des vous soobee yàlla dinañ leen mën a ñu continuer pour que parents d'élèves yi ak élèves yi sentir ni am na organisation syndicale bu tudd SAEMS préoccuper aussi de la vie familiale. li ñu jàpp d'abord pour l'année 2019 nous ñëpp d'accord nañ ni grève amul Vous avez Une grève amul lolo aussi wanewul ni gouvernement bi limu mu waxante woon ak ñun lepp respecté nako dedet mais ñun dañ japon ni même bu dee am na lu dess année 2019 dafa nek année élection présidentielle té comme élection président de la république def ñu soxal ñun ñep ñu ne nañu toute revendication permettre sénégalais de façon très libre mais ñu choisir ki nga xamné ne jité Sénégal parce que lolu buñ ko amon nu ñu doxalé won ci mbir momu nous nañu considérer comme des farfis ou wala ñu alors que ñun faruñu fenn nous sommes de la société civile comme nag loolu am na loolu année bobu mais kenn dégguñu mais nous, suñu revendication ñu ngi ne continue jonn déposé nañ préavis de grève depuis le 2 décembre nous dina expirer le 2 janvier le gouvernement au Sénégal si bu situation d'accalmie bii ñu nekk stabilité bii ñu bu bëggee mu continuer il faudrait que mu respecter accord yi nga xam ne daf ko xaatim ak jàngalekat yi. 2020 li ciy xaw man xaw ko mais lépp li ciy xew rek mu ngi dépendre ci li gouvernement bi di def parce que année bi weex wala mu ñuul wala mu rose mais loolu mu ngi dépendre rek ci gouvernement au Sénégal bu dee bëgg na une école stable. il faut mu def li nga xam ne moom la waxante ak jàngalekat yi muy la signature du protocole d'accord point yooyu ci nekk na ko respecter gis nga bu ko respecter ñun kenn gënuñu nekk sénégalais jógewuñu Sierra Leone jógewuñu Guinée fii la ñu juddoo fii la ñu magee fii la ñuy tekkee te teg nag dañoo tànn métier bu noble mais nag kenn du dunde noblesse possibilité la ñuy il faut que jàngalekat yi comme tous les cadres du Sénégal mais ñu jox leen seen i gëdd te dama la ciy jox un exemple très simple le système de rémunération des agents de l'État maanaam nu ñu tabaxee payoor yi agents yi nekk fonction publique il faut que gouvernement au Sénégal corriger ko